jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye mbokk yi képp ko dégg kàdduy yi Serigne Mountakha yi ci ndajeem ak conseil municipal bu Touba xam nga ne wuutu na Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ca la mu waxoon wàccoo naa ak yéen def naa ngeen gis wax na ngeen dégg bind naa ngeen jàng dëgg-dëgg Serigne Muntaxa wàccoo na ak ñun waaye mbokk yi ndax dégg nanu ko ndax xam na nanu fa muy waxee sëriñ bi ñëpp la waxal bàyyiwul kenn li wér te wóor mooy ku dégg kàddoom yii kat xam ne sëñ bi xam na li xew moom xam na li xew ci dëkk bi xam na li xew ci réew mi mbokk yi dégg na njàmbatu askan wi te ba na nag ndax yitteem yépp mooy taxawu jaam ak gindi dégg nañu ko ndax xam nañ fa muy waxee damay laaj rek sëriñ bi ñëpp la fàttali ni nu war a nekkee ci barab bi ak ki ñu fi tax a nekk ñu xam ne Touba daara la sëriñ Muntaxa nee na sëriñ Touba nee na amul mbokk kon ñun ñëpp ay dongo lanu da ngay seet lii rek ci woyof ci wàcce sa bopp sunu borom yëkkati la ndax dégg nañu ko ndax xam nañ fa muy waxee humilité ci képp koo xam ne da nga yore responsabilité ak koo mën a doon nee na li fi sëriñ bi bàyyi barke la du nguur barke ak nguur danoo nuroo te wute lool ndax nguur doolee koy yor moo tax ñuy wax force reste à la loi barke ci ngërëmal yàlla lay jógee mbokk ndax dégg na nañu ko ndax xam nañ fa muy waxee kii de xam nga ne xam na li xew nee na Touba dafa wute ak ni ñuy doxee ci biir Sénégal ci la ñu bokk de taxu tàqalikoo waaye ni ñuy doxee ci mi sunu doxinu bopp woo xam ne noo ko moomal sunu bopp xam ngeen ci dara ndax kat yëngu-yëngu yi weesu muy élection yii ni ci Sénégal yëpp doxee wuute na ak ni ci Touba doxee nee na tàmbali ngeen cee xam dara xam ngeen ne sëriñ bi xam na li xew de xam ne sëriñ bi yëg na li xew te xam li xew moo mat a def ndax yàgg nañu ko fàttali mbokk yi nit foo mën a nekk da ngay jéem a xam li xew waxu sëriñ mun la de du samay wax ndax bu wuute gu amul woon ndaje mi dana am damay laaj rek ku xam wax ma ndax dégg ko ndax xam nañ fa muy waxee sëriñ bi yëg na le xew ci dëkk bi moo tax ba ay kàddoom jibee xolu taalibe yi sedd nañ waaye mburit yi gindiku nañ mbokk yi ndax kat nee nañu lépp loo dégg ñu ne la sëriñ Tuubaa ko wax bu tàbbee ci xolu taalibe yi xamal ne mooma lépp loo dégg ñu ne la sëriñ bee ko wax nit ñi di ci am ay xel xamal ne bàyyee kowul ci sëriñ bi kon nag képp koo xam ne yaa ngi doxee sañ-sañ gàddu sa sëriñ bi nee na na nga ci tey de ndax kat sëriñ bi ñi muy liggéeyloo wax na ñëpp lim leen di liggéeyloo ak li muy séentu ci ñoom ñëpp ni ñu war a nekkee mooy ak taalibe fu waay mën a nekk ak ci looy mën a yëngu bàyyil xel sëriñ bi ndax dégg nañu ko ndax xam nañ fa muy waxee mbooloo fu ñu dajee mënta ñàkk ñu jiite xam leen li ngeen yor mënees na cee defaroo mënees na cee yàqule it nee na liggéey bi di woyof de xam leen ne lii ñu weesu lépp da ngeen doon jàng liggéey baa ngi doog a door xam ngeen ne Serigne Mountakha xam na lu xew de nee na suñuy warteef ñun ñëpp ni ñu waree nekkee fii ci dëkk bi mooy bañ a doon lenn lu dul ak taalibe mbokk yi ku ci nekk xam nga ku ci nekkul xam nga li wér te wóor moom Serigne Mountakha Mbacké wàccoon ak ñu jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM.